ginnaaw bi nu sante yalla jul ci yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam di len nuyu man la Mamadou Thiaw di maire Tasset dans le département de Thiès di directeur général PNDL programme national de développement local dama ñewon tay ci lever corps bi euh, ci suñu euh, ci ñi nga ni ñoo ñu di soxnaam ak njabootam ak mbokkam yépp di ko jàll président Macky Sall ku nekk gis na taxawaay bu rafet bi maître Ousmane Seye taxawoon ci wetu président Macky Sall di ko jàll waa Benno Bokk Yaakaar di ko képp koo xamante ne jullit nga rawatina waa kër Sëñ Touba ak waa kër El euh, man nak sama xol dafa fees 2007 bi ma ñibbisee jóge France euh, ci ñi nga xamante ni euh, ñoo ma tette ñoom laa daan waxtaanal ma liggéey ak moom ci dossier yu bari moom ak maître Nafissatou Diop Cissé mën naa ni ci ñoom laa fi jëkk liggéeyal ci ay dossier moom tout dossier bu ma mës a am ci affaire justice euh, moom laa ko daan jox mu tette ma wan ma yoon bi maître ma Nafissatou Diop Cissé xam na ci lu bari parce que mom aussi lepp lu tourner won autour ci affaire notaire mom laa ko dan jox muy perte bu maga maga maga a mag ci Sénégal ku nek xam na li mu représenté woon ci Sénégal di won ko xamanteni man sa buma togué ak mom dama jàng lu bari mu nek ko xamanteni euh boo nit ki mëno ko xam tank fréquenté woko donc man naa ni 2007 ba tey. La ànd ak moom di euh parti politique am bi bobu man defuma politique sax dama dan ànd ak moom euh, mu may inviter ay réunion feulé ca mairie Grand Yoff bobu bama bolé ko ak sama benn jigen bu tuddu Daba An Daba An ku nek xamna ni moy responsable jigéenu maître Ousmane sey ci partem bi Daba An mom ma jàpp ci loxom ne ko man de dama am sama benn grand buy politique man nag defuma politique waaye dama bëggoon nga ñëw jàppale ko ma nga dëkk HLM Grand Yoff xam naa ni moom aussi maa ngi koy jaale Daba Anne maa ngi lay jaale maître Ousmane Seye donc Daba Anne moom aussi ba ma ko booleek moom mu taxaw taxawaay bu rafet rafet rafet ci maître maître Ousmane Seye di ko jàppale guddi ak bëccëg moom maa ngi ko koy jaale moom Daba Anne ak jigéen yi nekk ci ginnaawam yëpp. waaw dal la daal di ko jaale waa Sénégal di ko jaale waa Sénégal di ko jaale képp koo xamante ni rek jullit nga maître Ousmane Seye jullit la woon maître Ousmane Seye ku bëgg yonent bi la woon ku bëgg sañ Touba ku bëgg lu baax la woon ñun suñu royukaay la woon parce que dafa bëgg lu baax nekkoon nit ko noble donc euh, yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla dugal ci àjjana ya gën a kawe ca taasuñ ci barkeem jërëjëf